ah nooy invité nit ba pare fàtte turam yow tamit nag moom mii. yow laa ko doon fàttali ñu teg ma caméra moo du Mouride mbay <laughs> ah Serigne Modou Mbaye. Modou Mouride Mbaye moo ci yokk Mouride bi ci diggante Serigne Modou Mbaye. tout court waaw. tout court. Eh. ah tout <laughs> ci TikTok bi <laughs> donc neex a ah tout court ah, daal daal la ah la. tout waaw ah, wane nañ ko de moom keneen daa ko moom keneen koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàmm da euh, di wax ni tey sunu rubrique euh, xurda bu ñu ngi dalal sëriñ Modou mbay waaw yokk na ci diggante bi murit ak yooyu yëpp xam naa pour xaw ma pour jéem ak ay tout ak et cetera ak yooyu yëpp sëriñ Modou nuyoo la askanu Sénégal aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli noo ngi nuyu bu baax a baax sëñ alaaji saa joogu mbekk vraiment di kontaan ci ñëw seen émission ak soxna Betty Boop di ko bëggee di ko ñaanal di nuyu Omar Bun Xataab Gueye di nuyu baax Sisté di la ñaanal jàmm di nuyu personnel bi régie yi ak ñëpp topp mi ci suuf nga xam ni ñoom ñi nekk ci gannaaw caméra yi bu li rafetee ñoom la di nuyu boroom kër gi alaaj Sidi Lamine Niass macha allah jërëjëf eh, sëriñ Modou yow de da nga doon yooru ba yegg si yaa ngi yegg si ci eh, foo xamante ni fii eh, xaw ma ku la fi dugal waaye sa carrière mën na fee jaaree arrêté xaw ma nag ndax yëgoon nga ni yow yëgoon nga ni bi ngay ñëw fii ngay yow yëgoon nga ko carrément wala tab dafa jekki-jekki rek ba max la man xam naa fi ma ñëw eh, ndax télé bi diinee ko sanc hmm. ci slaayu télé bi diine la hmm. ndax ah, alaaji Sidi Lamine Niass ku ne xam na ni ah. euh, léppam diine la ah, macha allah moomub cër hmm. kon bu sampee tele bii ak diine <laughs> yaakaar naa ni émission yi man duma fi bett ndaxte ñun bi ñuy ñëw fii ah, xam nañ xam nañ xam nañ li ñu fi indi mm-hmm. ndax yéen mm-hmm. kenn ku ci ne am na foo bokk ci ci ci réew mi mm-hmm. te itam diine moom mooy mooy laytaalu lépp kon nag waaw te waaw sëñ siidim sëñ abdoulaat rakkam ju baax ji sëñ naa di sama lépp doom sëñ ji li di kenn ci man nga xam ne bari ki dem rek laa fa jóge ñoo ngi leen di ziare baax ziare waa Touba en tout cas daal kontaan naa ci ñëw gi ñëw gi ma ñëw fii bokk ak yéen plateau bi jërëjëf macha allah xaa sëñ bi mbay ski bi neex na waaw neex na xam nga macha allah li nga way nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, dugg na ci sama xol bi xam nga man la ma ma jaaxal nag yéen Buuba Nduur da leen a yëpp ñoom non non non mais c'est que c'est que c'est li may wax ni c'est très important parce que yow jeune nga du dëkk nga préféré lii du dëgg di way way way nabi te way bii nga ko way wax dëgg fa yàlla man dafa dugg ci sama xol bi daf maa neex trop te lool la jàpp naa ni noonu la duggee ci xolu nit te yow mi ko doon way xam nga ni li ngay def nii neex ma donc ngeen am li ngeen am Bouba Ndour mën a taxaw ne yéen ñii moo ko wax ne yéen ñii di way way yi maanaam da ngeen a mënta réussir ci mbalax moo tax ngeen jaar nii moo ko wax nu ngeen jàngatee wax jooju. waaw Sa Ndiogou man nag loolu dégguma ko. boo ko déggul moo ko wax. waaw xam na ni moo ko wax d'accord parce que. li may wax nii Bouba ko wax. ah loolu wax lu leer la. waaw waaw loolu li nga wax noonu yow. waaw mais loo ciy tontu ginnaaw wax naa la ko léegi melal ni dégg nga ko. waaw da ngay mel ni dégg nga ko euh, le problème man. solu ma ko xam kii xam na li may wax. yéen yéen yow mi ñi ñii di dégg nañ ko non mais dégg ngeen ko aywa ñëwal. waaw ah, léegi. waaw comme que wax na loolu te man dégguma ko. waa waaye jot li nga ma ko yow. la ma ciy wax leen rek lay doon. waaw ñun. Mm-hmm. du ñu ay woykat. mbalax mbalax <laughs> ñun yonent bi la ñuy woy. sallallahu alayhi wa sallam. umu kalsum ku ne xam na ko ci yonent bi. Mm-hmm. lu raw lii nii la daan woyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. te sëñ Tuubaa sëñ Musaa Ka dafa wax ni lu jóg ngir rasulillahi baatin ba saf xorom mm-hmm. ñun yon yonent bi la ñuy woy waaw bi mooy sama premier album bu ma def euh, clip bu ma def mm-hmm. mu am instrument man xasaayit laay jàng ci li ma ñëpp xam ah, waaw instrument yi nag dama am staff boo xamante ni. Mhm. ñoom lay liggéeyal. Mhm. bu ñu demee ba koor gi dañ ma xamal ni ma bu ñu defee lii daal. Mhm. dina dina dugg ci xolu nit ñi. waaw te itam bi ñu ko. defee ko ci defee sax baax voilà rythme bi rythme bi rythme te bariwul bëriwul instrument yi bëriwul trop. Mm, man dama doon wax sax naan leen nañ ko gën a wàññi mu gën a léger. waaye ñoom nee nañ bi nii nii la baaxee. Mm-hmm. su ko defee ñun benn bii lañu ci def yeneen yi ñu def yépp ñun xasida la ñuy jàng. xasaay Sëñ Tuubaa est-ce que xam ngeen ni yéen ñi mm-hmm. yéen ñii bu ngeen gëmee lii ngeen ne. ngeen di teewi kii bi ci seen loxo est-ce que xam ngeen loolu. loolu sax lañ lañ lañ lañ gën a bëgg nag. Mm. ndaxte sëñ Tuubaa daf daan wax naan. waaw dee leen jàng rek waaye ñi koy neexal ñi ngi ñëw yi. Mm-hmm. lii nag daf cee bokk. ndax lii man gëm naa ni man lii moom aljana ñi ñu bëri dinañ dinañ ko déglu parce que sëñ bi dafa waxoon ni yéen ñi jàgg sama xasaayit yi mm. wala gi yamel xam dañuy yuqi seen baat yi ba mu toll ni baati njama la ngeen ko fay yëkkati te ñun yorundu fa may nekk ci aljana de buñ la yuqee bu ma yorundu de <laughs> ba tax na nga ay niya waay ah. ba tax na ñun ay ndaw lañ mënoon nanoo defi leneen suñuy baat neex na mhm. benn anecdote rek laa lay wax am na kilifa gu mag woykat bu mag fii Sénégal ma tuddoon turam di nga ko xam mhm. topp nañ ma ci moom ba tàyyi bi may soog a démarré waaw ñëwal ànd ak moom dama bëgg ñu dem ay tournée Europe mhm. Canada fu ne man leen man sama baat bi ba ko yàllay bind xasida yi sëñ Tuubaa tagg yonent bee taxoon kon bu fekkoon dama ci xool privilège wala yeneen mhm. damay dem ci yeneen côté waaye ñun ci lañ nekk dañ koy wat a motiver waaye daana yax yàgg na mhm. waaw kon nag ñun voix boobu yow yow yow maanaam bu ma la déggee mooy eh, nit nga koo xam ni li ngay def danga koo gëm mu nekk lu am solo mhm. euh, te it ku la déglu nii nga wayee xam ni macha allah yàlla bu la cat dugg waaye ku ko man nga parce ni nga ko wayee man bu nit wayee mu def ma ay chair de poule maanaam yëngal ma dugg sama xol damay xam ni kii ay na te noonu la may def sam kii bi bi ma ko dégloo loolu la ma def moo gisee ma teel ak coupé sax pour bañ mu yóbbu ma ma gën a sori moo tax ma daa dee teel ne eh, may ma pour ma mën laa wax li nga xamante ne bii moom la bu waxoon maanaam moom dafa jàpp ni lu neex ci mbalax la jeek ah, man noonu laa ko déggee man wax ji man noonu laa ko firee man su ma koy firi damay jàpp ni moom dafa jàpp ni lu neex rek ci mbalax la jeex te xamul ni am na ñoo xam ni toppatoo wuñu mbalax. ñu ngi ci leen mais saa festival salam bàyyi li ngay def wax loolu la woon wax loolu mag la magum jëmm la sikkim bi weex mu wax ko waaw. léegi lu ma rek li ma lu leer la. Ah. saa da nga faral mais je vous en prie mais def sama émission. mais munoo toog ci bi di buuba buuba buuba bu dul jeex. dama ko expliqué. dama ko expliqué parce que saay <laughs> léegi euh, sëñ naa Mouhamed nga ne mooy sa géer waaw yow moom defe naa ni euh, ki fi doon wax ne sama euh, sa kii kiiwu yonent bi ah, ah, waaw naan mooy sama géer hmm. moom am ah, moom moom <laughs> bi tàllalee photo naar boobu naan mooy géeram <laughs> mooy waree ne xamut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa ki nga xam ni mooy sa géer gëstu nga ko ba xam dëgg-dëgg kii mooy kan hmm. ndax gëstu nga ko carrément parce que damay bañ rek nga trompé wu ëllëg comme waaw man nag man nag yàlla dogal na ni ah. xale laa ci ay mhm. waaye man fi ma fekk baax ak fi ma juddoo mhm. dañ maa tarbiyee ci lii tasfiya mi tarxiya ma ci mhm. ñu jàng alxuraan dañ laa tarbiya tasfiya tasfiya tasfiya lu mooy mooy mooy teg la ci yoonu uh, njub siraatal mustaqim waaw léegi nag euh, yàlla dogal ñu jàng alxuraan ni ñu war a jàngee alxuraan. Mhm. génn. Mhm. defuñu lenn loo xamante ne luy méngoo ko yëfi àdduna la. yëfi àdduna waaw ñun dañoo du nekk ci lii ci njàng. Ah. jàng xasaayit. jàng xasaayit ndax suñu way jur wu góor sëñ Murit Mbay ah. moom moo jiite woon Nooru Daare ni fii sëñ Abdoulaye tegoon ko fii Pikine mhm. mu jiite ko waaw waaw jàngkatu xasaayit yëpp ñi ngay dégg xaadim ngay ñoom ñëpp moo leen tette jàngal leen sans way jur kon nag man su ma ñëwee mhm. dugg ci géew bi mhm. wax dëgg yàlla du ma mën du dul jël yoon wi naa mhm. Seydunaa Muhammad mi ngay wax sëñtuwaa moo nu ko xamal moo nu jàngal kan mooy moom waaw looloo waral lu ñu ciy wax ñun xam nañu ko te it xam nañ day waayam xam nañ tolluwaayam wayu ma ko way sax ci comme wii woy sax dama ko wax xeeb ndax biñ ko defee ba pare ba jox ko ay kilifa eh, diine yi ñu yaakaar mbàkke mbàkke yi suñu sëriñ si daanaka ñu ci ëpp ñoom ñoo ko njëkk a déglu

ci yenn kii ci ñenn ñi nga xam ni ñi ngi euh, ñi ngi way wala ñi ngi kii voix bu spécial connaisseur nag mooy xam yenn voix yi macha allah yàlla bu la cat dugg euh, xam nga am na ñoo xam ni ci am xam nga tey ji am na ñoo xam ni liñ jàppee voix bu neex mooy voix bu sew wala voix bu kii mais xam nga danga nga ko fii voix bi dafa jaay keneen mënoon na way comme ni ah même mais du am Euh, li nga am cas ji nga xamante ni bi moo nekk yow ci yow lu la xamal loolu am na loo xamante ni bi tey lan moo la xamal kii bi nga am ak kii bi quoi lan moo la ko xamal loolu damay laaj question bu xóol la xam na li may wax waaw loolu loolu nag borom moom mooy jagleel ko nit lu ko neex mhm. xam nga mënoon na maa def sama baat sew wala mu mu naqari wala parce que am na ñoo xam ne bu ñu yoroon waaye wax ne dañuy mën nañu wax ne ñu sikkar yi wala ñu def mais comprendre nga mais fi nga ko teg ci kii bi voilà mais loolu min nuuri kulli nuurin bi sana Muhammadu Lamin min nuuri kulli nuurin bi sana njol Makka yaa leen gën sëñ Bamba nee seyduna muhammad loo neex neex baat mana wayte wayo ka tëdd ca madina way wa deenaay ka way niil na njol ma kayaaleen gën seyduna muhammad fanaan na ci xunti ànd abaa bakare borom ñaari sàkkare yàlla ya sokkorloo Ababakar peru bët ba daa weex tàlleey la cay weex ni tàll la cay ñuul ni koko jooja waay wala nga laaj ko ñu naan kaab dafa nga ñi sayduna muhammad delluwaat nga ñi sayduna muhammad sama turandoo yonent bi ni ku ci dajeeg moom andil ma boppam kab dégg wax jooja dal kaalaw ba kenn mënta gis bët ya dal di ñëw ci ki gën ci jaam ñi di ko way di ko way ba njool màkk ni bërit dal li may laaj kii mooy kan kam ni ko ndax su ma di ma baal mu ni ko man maay kaab mu ni ko jéggal naa la ci daraja muhammadu rasulillahi ku ko tooñ léegi léegi moom yonen mu baal la léegi waaye ko ko ñaan léegi léegi mu may la léegi léegi sëñ Bamba nee na kahbun wal busayri xat barahu wa wa nuurun wa asraaru yi bilaay kenn du yonen addi siduna Muhammad Euh, am na solo Omar yow mi nga xamante ne bi yaa ko wayloo woon. Ah. Euh, bi mu yëkkatee d'accord naa d'accord naa <laughs> te li saa seetlu. Mm. Euh, seetlu nañ ko parce que dama saa sax li mu waxee noonu dafa am benn kilifa bu mu sa wax loolu mu ne may ñu bari dama jàpp ni baat bu neex mooy baat bu sew. Mm, mu ne ma te ku apprécié woon ndongo loola bu ma waxee mun a baat bee rëy te neex mun a lu jafe la mun a loolu nag du ñëpp ñi ko am bariwul loolu ndax saa daf mel na loolu la seetlu ci yow. waaw léegi nag euh, li jëm ci mbiri jàng bi comme li nga wax ni saa lu mu ne ëllëg yéenay téye mbir mi mais aussi yéen tey si seen biir euh, naam bari na ay talent mais ànd bi dafa des maanaam wujje bi ci jàngkat yi te ñu bari duñ ko souligner lan mooy loolu. waaw loolu moom am na journaliste moom mu laaj loolu ci benn télé. Hmm. xamal ma ni ma ndax yéen a ngi ci benn structure pour dajaloo booloo pour mën a dem ci kanam may xam le ni maanaam lii ñuy def ñun dafa tumburanke pour nga gis ku la ci jàppale. Hmm. mën naa ni beneen matière bi. ñi nga xam ne ñooy way nekk ci mbalax ak yooyu ñoom lañ gën a favoriser ba bari na yu ci bëree bëri ñoom lañ koy defal gis nga bu ñuy dem tey di tukki dañuy yóbbaale seen orchestre yóbbu plus de deux cent personnes def ay tournée mu yomb leen yooyu yëpp yomb leen waaye ñun nag comme que lii ñu nekk nii moom dafa yemul àdduna rek day dem ba àllaaxira ndax yonent bi nee na képp ku koy tagg moo la ameel càngaay xam nga dégg nga li may waxam déet waaw te itam ñun li ñu jël day am fële yamal xiyaam incha allah looloo tax ba ñun séentuwuñu ci lu dul euh, ridwaan ngërëmul borom bi lu nu ci fekk nag ñu jël ñu ngi ciy am lu ne nag yàlla ñu ciy dimbali ñu ciy voyage di ci yéeg avion di jàngi feneen ci àll bi euh, di ci am ay teraanga grace à tag yonent bi defe naa ni kon ñun ñëwuñu ci kenn waaw ñun ñoo ngi cee gis de manière générale ñiy jàng xasaay yëpp te sellal ko. ñu ngi cee gis seen bopp. sellal bi noo ko sellal bi moom mooy lan def ko jaamu yàlla. xam nga xasida leer la sëñ Tuubaa daf ni xasida ti faaqat xasaayidal kiraam wali taqoodu abadan xayral maraam nee na xasida yi lu dul alxuraan ak addis xasida yee ko féete kaw. waaye lu nit di sàkku te di ko wut. moo ci gën a gaaw boo ko xamee nag boo ko xamee gi mooy lan. mooy nga nga moytu na ma yàlla nga baal ma ci kii kas bu fen di jëw lekk lu léwul ak yeneen ya ca des njaaloo wala yeneen yu wër yooyu di jàng xasaayid yi ak alxuraan di ko sellal ndax njàng rek néewut ci ñu éviter ma ma ñëw toog rek jàng da toog sa kër wër di ko durus di jàng xasaayid di jàng alxuraan sa xol bi nga sellal ko bu ko defee loolu man moom laa tudde ak cell la li nga yéene sa wopp nga yéene ko saa njoogu mbeng mi ndax ni ko yàlla def moom mii kët Euh, jeté wu ma ko fleur waaye même bu passé comédie bi muy def nit la gis nga doomu aadama day am lu suñu borom jëmbat ci xolam tawhid bu nekkee ci yow bu nit defee dara lu nuru yàlla farfos dalay dalay dalay jàpp kenn mënu ci dara yéen ñi ñëpp di ngeen réactionné ku leen xool xam ni euh, diine dafa na ci yéen te loolu dafa am solo ci ab jullit kon ñun ci foofu la ñuy dox Cheikh Omar Bun Khattab nga jégal ma xam ma tontu naa sa question bu baax. wala non mais c'est bien aywa. Euh, noo dëgg sa <laughs> dañ koy euh, féliciter parce que nag euh, wax dëgg yàlla baat bi moom boo xamul sax waykat boo xamul dara sax war ngaa mën a nangu ne baat bi neex na macha allah dama la dégg nga ne yaa ngi doog am sa première vidéo yaa ngi koy soog a def nii. non bii mooy. bii mooy quatrième quatrième vidéo. mais mosoo am album. album mosuma ko def nag mais maa ngi ciy xalaat jamono ji ñu toll maa ngi ciy bind ak ñi may liggéeyal. boo mhm. xam ni douze dix douze titres laa ko bëgg a def ci kattanu yàlla. d'accord yaa ngi day wax ni sa staff ñoo la ñoo la ñoo la wax parce que nit booy liggéeyandoog ay nit aussi da nga leen di jox benn nopp bu baax di leen déglu mhm. yaa ngi wax ni ñoom ñoo tax morceau bi kese moom nga moderniser nii mhm. mais li saa remarqué man moom laa remarqué moom la keneen remarqué muy même boo ci defee instrument yi sax. dal na mhm. amul mbalax amul mhm. faqajoo donc loolu neex naa déglu tamit dañu jëm ci monde boo xamante ni li ngeen di yëngu foog ngeen koy moderniser nit ñi di ko mën a consommer baat bi di gën a génn parce que li nga way nii même bu ñu xamul dara ñun dégg nañ kàddu yi nga way dañ lay féliciter rek jërëjëf métti bu vraiment macha allah ma jigéen waaw man tamit fi ajaratu jaar rek fa lay jaar parce que bu muy wax sax man maa amoon ay frisson ajaratu sama yaram bi daa gaaw a dal waaye sama seddu kuul jóg en tout cas ñi ngi lay ñaanal yàlla suñu borom wéral baat bi euh, te aussi lépp li nga si bëgg rek yàlla defal la ko boobu noonu nga jëm cee liggéey rek ba bu ëllëgee keneen ku ko déglu it di nga am contentement ak mbégte yàlla yàlla defal la jàmm. jërëjëf si c'est content. allah waaw mais euh, euh, sëñ bi. gis nga man li nga xamante ni bii moom laay wax eh, man damay ñëw ci eh, beneen point muy Omar lim la wax nii ay dajaloo ay yooyu ay tardement lay indi. dëgg la non non c'est vrai gis nga yu mel noonu daanaka du dem dañuy ñëw dañ lay caxabal sax ne alir bi nga xamante ni bi moom nga nekkoon. non ñëpp nañ bay seen waar. mu nekk njariñ ngeen daje ji. mais pas waxtaan tamit di fa jëlee dara waxtaan da may déglu rek ku ci ne ah, ki mbirum compét ki kii la concurrence la. li wax xam naa ko de. compétition la. association yi la compétition la. Euh, mi ngi ci yoonam. keneen mi ngi ci yoonam yaa ngi dégg danañuy dajal ci feneen danañ kii leneen mais en tout cas chemin bi nga xamante ne bi man moom nga jël nii moom wax dëgg fa yàlla saay euh, li ngay def man nga ko waaw xam nga nag ñi nga xamante ne bi nag ñu ngi toog di observer. parce que tey jii man su ma amoon kii di wut koo xam ne jàngkat la dégg la damay daw jëli ji la parce que damay xam ni kii bu ma ko amee ñëy ñëw du ñu rus te danañ kontaan ca bés ba mm-hmm. waaw parce que li ngay def nag wax dëgg fa yàlla mën nga ko te neex na waaw neex na trop léegi nag projet yi laa bëggoon nga waxal ñu parce que comme que ñu ngi ci temps beeg yooyu projet yeeg yooyu ak naka nga nar a kii waaw man papa ñu ngi jëm ci koor ak affaire yooyu hmm. projet yeeg yooyu bàyyi ko yow it ak ah, saa yi béti béti béti béti nag la la la la la kii nag béti béti wax na xam nga moom sama sama sama sama sama mbokk taalibe la ndax moom ñoo bokk kër sëñ Abdoulaye dëgg la waaw te sëñ Sidi du def émission te tudd ko yéen ñëpp dafay dem ba yóbbaale leen ba nga xam ni da ngeen a bëgg sëñ Sidi kon nag li nga wax loolu la mm-hmm. ñun ñoo ngi ay xale lañ mm-hmm. ñoo ngi liggéey mm-hmm. ci ay projet comme li ma la wax douze titres bëgg nañ koo def incha allah balaa yàgg balaa koor gee dinañ génnaat fenn mhm. foo xamante ni si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñun dañu ko bëgg ba suñu taaw moom suñu doom moom lañu ko tuddee waaw nga xam ni mhm. euh, lu ñuy def nañ ko ca boole mhm. yonent bi sa alayhi wasallam ñoo ngi koy waajal ci koor gi waaye bu jàllee mhm. douze titres boobu moom bu soobee yàlla dana génn te danañ ko internationaliser mhm. ci yu bëree bëri ñoo ngi ci ay ay ay mébét yoo xam ne ay projet yoo xamante ni si ñoo ngi ñaan yàlla mottali ko daal mhm. vraiment ça kontaan naa dégg naa ci bokk ak yéen play kii euh, bét yi bi ñuy déggante <laughs> ma la koy wax ni la émission bi du ko tardé yaa ngi ma koy seen émission bi Baara Ndiaye ñoo ngi koy nuyu de passage mm-hmm. di nuyu ñëpp son yi bu mi nekk ci kër gi Modou euh, si Omar Bun Xataab Gueye maa ngi lay ziar siste maa ngi kontaan ma dañ la doon tooñ ci sa sa sa maquillage bi waaye lii baax na moom baax na moom egg na jërëjëf kontaan naa sama doomu baay maa ngi koy nuyu mbayeen bi waaw di ko bëgg bu di ko ñaan jërëjëf waaw kontaan naa